alarba yemook euh, fukki fan ak juróom benn ci wérub décembre ci atum 2020 xibaar yi ci marax bi ci seen télévision régionale du prestige euh, delluwaat rek rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun bés bu yàlla sàkk ngir xaar xibaar yi tukkee bitim réew bi réew mi di Sénégal loolee nag nekk mbégte bu am solo ci ñi xam ne ñooy liggéeyee ci seen télévision régionale du prestige li gën a fës ci boppub xibaar yi nekk daal coowab ñetteelu mandat bi xam ne ay weer a ngi nii ñu ko doon ñu koy ruumataat di naan ndax njiitub réew di président Macky Sall dina ko laaj am déet daa ni ne de mbir maa ngay bugg a féete boor la ko waral nag ka xam ne moo nekkoon présidente conseil économique social et environnemental ba woon di soxna Aminata Touré daal dina yebbi daal dina ci yéey yàbbi nu mu àddoo daal wone ne Euh, njiitu réew mi Macky Sall euh, du mën a laaj ñetteelu euh, mandat ki nga xam ne nag mooy ministre des mines et de la géologie moom nag mu amaloon ab tukkib nemmeeku foofee ca cimenterie di Sahel ca cimenterie Dangote sax mu demoon fa ngir xool askan as liggéeykat ya ca yan anam la ñuy liggéeyee may nag bu mu ca noppee daal rafetlu na lool. xarañte bu mu xam ne nag gis na ko foofee ca cimenterie euh, Dangote ñi nga xam ne nag dañoo retraité nekk ci Thiès euh, ñoom de dañuy am jafe-jafe lool la jëm nag ca jot seen payoor de nag fay bi daal day yeex lool laata ñu ciy jot loolu nag nekk jafe-jafe ba tax na nag suñu reporter yi euh, xëyoon nañ tey ci suba daal dem xoolu leen ci anam ñuy faral di fayee ko waaye nag artistes yi nekk ci Thiès ñoom de euh, mer nañ ba foot la ko waral daal mooy arrêté bi xam ministre de l'intérieur daal dina ko génne wax ne la yitteel wàllu yëngatu euh, dañ koy dàkk loolee nag nekk na loo xam ne dina leen gàllankoor ndax jafe-jafe la leen di euh, jural xibaar tel bitim réew ak wàllu tàggat yaram moo fas xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute. Sunesa Yuhus Indi Indiatal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf yéen ñooñi xam ne ni ñuy seytaan jamono yi ca bitim réew ci réseau bi ñuy wax IPTV waaye nag am ñu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige daal di dooree xabaar yi nag la yitteel euh, feebar bi di coronavirus ñu gis ne nag bés bu yàlla sàkk nguurub Sénégal euh, di amal ay point du jour xam le nag ana fan la réew Teranga tollu jamono yi ci mbass mi di coronavirus ah, ñu nemmeeku ne nak tay ji ci alarba bi lu tolloog téméri nit ak ñaar fukk daal dinañu am ah, fièvre bobé di coronavirus ñaari nit daal di wàcc liggéey loolu firndeel ne de ah, bi dal mu ngay wéy di am tank ci biir réew mi di Sénégal Léral, ñu ànd ci docteur Elhadj Mamadou Ndiaye mi xamné moy directeur de la prévention nek ci ministère de la santé et de l'action sociale ministère de la santé et de l'action sociale a un résultat examen virologique yi may a ci junni ak ñaar téeméer ak test un def positif ci positif un ci ak contact moy ñi jot ci mbass mi fekk un jaxaso won ak ñi yoré doomu jangoro ji amuñ ci benn cas bu joggé bitim rew manam un importé ci juróom-ñett fukk ak juróom ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ñi mbas ñi fekk xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee Touba am na ci juróom-ñeent juróom-ñett Plateau juróom Rufisque ak Saint-Louis ñeent Almadi Diourbel podoor ak Richard tool ñett Fann Résidence Guédiawaye Ouakam Ouest Foire Thiès ak yoof ñaar ci Mamel Matam Mermoz Parcelles Assainies ak Point E benn ci Daaru Musti Diamniadio Jëppal Kaolack Kokki Louga Mbacké Mbao Ngor Sacré Ourossogui Sacré-Cœur 3 Sicap Baobab Vélingara ak Yeumbeul téeméer ak juróom benn malade si ñi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñaar fukk ak ñett malade ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb talaata fukki fan ak juróom ci weeru décembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan euh, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye mbokk yi nag ñu des nag ca jafe-jafe yi xam ne feebar bi di coronavirus mu ngi koy laaytaayee jëmale ko nag ci askan yi xam ne Euh, dañoo daan amal yëngu-yëngu te gis nañ ne nag jamono yi euh, seen yëngutu yëngu yooyee xam ne dafa daan laajte mbooloo gis nañ ne daal euh, yëngutu yooyee daal daal nañ ko tegee fee la ko waral nag mooy wàlle feebar bi di coronavirus. Euh, ba tax na nag ginnaaw bu ministre de l'intérieur génne de ay jooyal ay ndogal ne la jëm nag ci ndaje yooyee dinañ ko dàkkal euh, ñi nga xam ne nag ñooy association euh, des artistes yi nekk Thiès ñoom daal daal nañu mer lool ci doxalin yooyee la ko waral daal nee nañu cay loolee nag lañu ñu doon daan seen doole ngir mën a yor seen njaboot nee nañ nag fu mu toll nii daal sonn nañu lool il faut nag ñu bàyyi leen xel. ba tax na nag démb ñu nga doon amal la ñuy wax nag euh, point de presse maanaam jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi wax nag ana lan moo leen métti ñoom nag nee nañ daal ndoxalin bébé métti na leen lool euh, suñu reporter di soxna Fatou Fall ak Cheikh Fall euh, teewoon nañu nag ndaje boobu ñu teewloo. gannaaw ba jëwriñ ji ñu dénk bi réew mi génnewee ab arrêté di tere bépp dajaloo buy lawal jàngoroy coronavirus. mu naqari loolu artistes yi ba tax ñu woote woon ab point de presse démb ca talaata ji ca palais des arts bu Thiès bu ñu sukkandikoo ci acteurs culturels yi jàpp nañu ni gouvernement bu Sénégal taxawul benn yoon ci seeni jafe-jafe ndax ay weer yu bare ngi nii liggéeyuñu. parce que su nekkee nit ki voix am la yor wala instrument am la yor chaque week-end moom lay liggéeyee pour mën a dundal njabootam nga xëy un beau jour.

mbokk yi nag ñu àddu lay teel wàllub askan bi tubaab di ko wax société euh, gis nañ ne nag ki nga xam ne moom mooy ministre bu yees bi xam ne moo yor wàllub mine ak géologie di Omar Sarr Euh, démb nag mu nga woon fële ca cimenterie Dangote doon amal tukkib nemmeekum njëkk euh, ginnaaw bu ñu ko tàbbee ca boppub euh, ministère boobee moom de dem na fa nag daal dina xool liggéeykat ya ci ana yan anam la ñuy liggéeyee ba tax na nag moom nee na daal la mu gis dalal na xel nee na liggéeykat ya daal ñu nga ca jàmm waaye nag professionnalisme am na foofee ca cimenterie du Sahel

ba ma visité usine bi gis naa vraiment usine bu bu moderne la am na ay robot am na yu bëri ya nga xam ne ñoo ngi koy utiliser si amul sax si yeneen yeneen dëkk yi mi ngi mel usine yu am yi euh, ay pays développés yi yooyu yooyu noonu loolu laa gis fii loolu mu nekk vraiment benn atout ba nga xam ni usine bi am na ko ñun bien sûr suñu ñëwee fii duñu gën a xool euh, moy euh, carrière bi ñom nu ñuy nous, ciment bi parce que permis d'exploitation nous, le ministère mo donc il faut que nous xol lolu bu baax c'est nu nous, exploiter d'abord gis matériaux ay les machines modernes yu pour euh, euh, bañ a am poussière parce que do mën nga jaar fii te bañ xam ni euh, ciment nu ñuy defar fii parce que doo gis poussière vraiment ay ay moyen moderne nu nu am fii ma félicité bu baax direction générale ak ak ñoom ñëpp ak travailleurs yi si la ma la ma gis fii. Euh, ki nga xam ne nag euh, mooy Ousmane mbay mi xam ne mooy directeur administratif euh, bu cimenterie Dangote moom ci wàllu boppam nag ba mu jëlee kàddo rafetlu na nag tukki bi xam ne ministre bi daal dina ko def foofe ca cimenterie ba waaye nag yéey na yàbbi nag ca anam ya ñuy liggéeyee dellusiwaat na daal sargal bu baax a baax Omar Sarr ci bàyyi bu mu leen bàyyi xel Ousmane Mbaye mooy directeur administratif bu cimenterie Dangote te buñ ko falee ba léegi ba mu jëlee ñëw na seet si ñu ba muy ñëw bu seet si ñu wër nañ usine bi pour wan ko suñu installation yi wan ko installation yi ñu am yëpp si usine bi te kontaan na trop ndax gis na investissement yoo xamante ne ñu ngi koy def sur le plan la protection de l'environnement notamment équipement yi utiliser pour ne pas que muy am ay poussières yoo xamante ne day impacter village yi ak investissement yi ñu def yëpp yoo xamante ne ñu ngi jéem a n'est-ce pas l'une ñu dénk mooy je pense que le ministre bi si ci fin bi que ne kontaan installation yu mu gis ak effort Dangote mi dans le cadre de la protection de l'environnement euh, bon capacité de production usine bi mi autour de 1,5 million de tonnes par année il faut bien xam que bon Dangote tourbiré au Sénégal mais par rapport à que nous conquérons, ñoo ñu une capacité donc ça tourne autour de 1,5 million par année bon perspective déjà euh, par rapport à capacité bi ak marché bi déjà am nañ benn part de marché bi am solo fexe ko téye part de marché bobu parce que on peut pas aller au au dessus de cela parce que lool moy suñu capacité té presque egg nañ ci donc dañuy jéem a gën pour satisfaire clients yi té Dangote je pense que ciment bi sénégalais yépp reconnu nañ né ciment de qualité bu baax la fi andi donc lool lañuy fexé fexe jëm see gën a ba nga xamante inshallah, incha allah yi qualité bi di gëna yok té client clients yi di gëna satisfaire. mbokk yi nag ñu des ba léegi lay teel askan bi di société gis nañ ne nag jamono yi de ñi nga xam ne nag ñooy mag yi retraité daal ñu ngi am jafé jafé la jëm nag ci seen fayeekup seen pension yooyee ba tax na nag ci naaj bu tàng la ñuy faral di jëm ca bérubul fayukaaya ya ngir jot sen payor, wax nañ ne sax payo euh, fayeeku bi de euh, ci weerub euh, fayeeku weer bi sax ñu ngi ko soog a jot ci ñetti fan ci weerub fukki fan ak ñett ci weerub décembre loolee nag jur jafe-jafe ci ñoom tax na nag ba ñoom ñu ngay ñaan ñu jëmmal leen ay carte bancaire yoo xam ne Euh, dina jëm dina gën a yombal nag euh, seen feyeku boobee euh, ñu daal di ki nga xam ne nag mooy soxna Rokhaya jeng ak Ndeye Coumba Fall demoon nañu nag ca bërëbu feyukat yoo feyu feyukaay yooyu xam ne mag yi fa la ñuy feyeekoo di retraité yi ñu teewlu seen reportage ci tàngaay bu tar ron bu gudd yooyu jafe-jafe la suñu mag yi di jànkonteel ngir mën a jot seeni koppar. ñun naaj wi tàng na ci tàngaay woo xam ne bu ñu xëyee fajar ba bu ñu ñëwee fi bala ñooy ñibbi daanaka dañu ñëw sax rek ba pare ñu ne ñu xaalis amut ñu ñibbi waat te loolu yëpp dafa metti ñu defal ñu ko orange ba sax moo ñu ko gënal ku nekk toog sa kër ñi feebar ñu jël leen en charge di leen fay sa seen kër. moo ko gën naaj wi dafa tàng. foofee ca post bu rond-point Ngent jafe-jafe yu ni mel lañ fa nemmeeku. toogaay bii dafa metti loolu boobu mooy jafe-jafe bi metti na moom. fàttali leen ni suñu mag yooyu lee ngir ñu jot ci seen xaalis lu metti la ñuy daj. oui metti na di liggéey muy metti ngay fayee ko muy métti carte yi ñuy wax nag moom ah, mën na guñ cee xalaat dara parce que ba bu ñu ko diggeek léegi yàgg na te gisuñu dara ba tax na ñoo ngi sàkku si nguuru senegal mu def lépp li war ba ñu mën a jot seen xaalis si anam yu wóor te yomb mbokk yi nag euh, ñu daal di xuus la yitteel wàllub politique gis nañ ne nag ay euh, weer a ngi nii ñu doon wax rek la yitteel wàllub ñetteelu mandat ñenn yi di naan nag ndax son excellence le président de la république Macky Sall du daal di sampat ndënd comme ni ko yeneen président yi nekk ci sous région bi defee gis nañ ko ca Côte d'Ivoire gis ko ca Guinée waaye nag loolee daal daan nañ ko ruumataat ci mi réew di Sénégal waaye nag mel nañ ne daal wax joojee mu ngay bugg a féete boor la ko waral Euh, ki nga xam ne nag moom soxna Aminata Touré nekkoon présidente euh, conseil économique social et environnemental ba woon daal di dal yey yàbbi na mu waxee daal na ne euh, Macky Sall ala mukk du mën a laaj ci ñetteelu mandat ba tax na nag ci Thiès nit ñi daal ci ni mel ci suba Ahmadou Bambali ak Adiba wàccoon ci mbeddub Thiès ngir xool ana nan gis-gis la nit ñi am ci ni mel ñu teewlu seen reportage. Aminata Touré mi fi ancien premier ministre di ay kaddu jëmele ko ci mandat mu depuis 1990 ñaar ak ci leader ci fuk ak pays Afrique dal Nous pouvoir ñu yoon mandat mom Aminata Touré président de la République waru laaj mandat. gis nga Sénégal suñu bëggé suñu réew am ay yu dëgër dañ ko jël ko ci constitution bi dafa nekk kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegloo léegi nag maa ngi leen dégg ñoom ñu ngi koy interpréter naan ay mandat bu cinq ans ak mandat bu dix ans que ça soit mandat bu cinq ans mandat bu dix ans mandat bu cent kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat loolu mooy réalité bi xam nga mi Sénégalais peut-être dañ ko xamoon si courage na gën a am courage su fekkee dafa bëgg a dem opposé wu ji mu dem opposé wu ji taxaw ñu taxaw en face euh, nekk jàkkaarloog moom mais quant di génn di wax wax yoo xam ay naka saxandaan gis nga président li nga fi li nga fi teg muy conseil constitutionnel euh, bindam leer na Sénégalais yi aussi du ñu ay dof Macky mi ngi si premier mandat am président Macky Sall mi ngi si premier mandat am de cinq ans. coowal ñetteelu mandat wéy di lëmbe lool suñu langu politique yi Aminata Touré mi jàpp ne président de la république mënut laaj benn yoon ñetteelu mandat ndax suñu constitution nangu ko benn yoon. président Macky moom aussi moo waxoon ne bu ko kenn xaar ci moom muy wax waxu troisième mandat. donc li mu li mu Touré wax effectivement noonu la demee seulement kay période bi mu ko waxee rek man moo ma jaaxal parce que bàyyi ba génn. Mimi effectivement lu melni dina ko dal. que ni li Amadou waxone lay gëna gël moy euh, fidélité de circonstance xaw fidélité de circonstance wala waccé nañ ma damay mer damay def damay def non il doit être digne puisque euh, gérer une institution bu président ko donc buñ démé ba tay mu wacc tax mu bëgg troisième mandat pour victimiser vous? loolu man duma ko dama koy ñaawlu dama koy ñaawlu d'autant plus que Mimi Touré euh, ku sénégalais yi ñaaw nawoon la. coowal ñetteelu mandat bari na lool ci réewum Sénégal ba tax na ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu droit daanaka sax woro gi bari na ci lool. mbokk yi nag euh, addu ca xibaar yi tel bi réew mi tubaab di ko wax actualité nationale la ca gën a fës nag ci bésub alarba bi mooy de euh, lay teel xale bu góor góor gi xam ne mu ngi amoon tolloo ko fukki weer daal di wàcc liggéey ca benn crèche maanaam bërëb bu ñuy dénkaane xale ya euh, crèche bi ñu koy wax crèche la cigogne bleue mbokk yi loolu moo gën a fës xibaar yi tel bi réew mi di Sénégal ñu ànd ci soxna Fatou Fall. ñu doore xibaaru biir réew mi ak l'armée bu Sénégal mi jot ay jumtukaay euh, tey ci àllarba ji ci teewaayu Biram Diop di njiitum larme boobu lee jumtukaay yooyu nag nemmeeku nañ ci ay camion euh, bus ay fital ak yeneeni équipement loole nag dana leen gën a yombalal seenub liggéey ay semaine a ngi nii ña dëkkee ca quartier ya nekk ca wetu fore bu mbaaw ña ngay jànkonteel ay agression yu métti ci seeni gox fi ko tàmbalee yëmbal kër mbay fall ba kër masaar agression yi tar na fa loolu li si gën a doy waar di ab xale bu jigéen bu ñu enlevé ba pare daal di koy sàkku ñaawteef yooyu daal tiital na it askan mbay yeewoo ca jidda yëmbal sud ña ngay ñaan kilifa ya daal di leen jàppale si seeni jafe-jafe jeexaloo ko ci mbirum bébé boobee xam ne moo ngi ñàkk bakkanam altine bi weesu ci keres bu nan naan la sigoñ bleu la jëm ca lanket ba def nañu ko ba jébal nañu dossier ba kii di procureur. bàkk boobee di jëmmal la yitteel bitim réew bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale du prestige di xuus ngir xool ana lan moo gën a fës ca bitim réew ba tax na nag tey jii de la ca gën a fës soxna Mariam Ly moom ci wàllu boppam nee na daal euh, président bu réewum Amérique bu yees bi xam ne tàbb nañ ko di Joe Biden moom de euh, daal dinañ tabb koo xam ne daal. yéeyaay nee nañu góor jigéen la waaye nag moom de daal dinañ ko tàpp la bokk ci askan googee daal di wala xeet boobee daal dinañ ko tàbb daal mu fas yéene nekk nag ministre des transports ca réewum États-Unis mbokk yi loolu moo gën a fës ci bari tel bitim réew soxna Mariam lii ñu tàmbali xibaar yi ñeel bitim réew ca États-Unis ak fal bi Joe Biden fal kii di Pete Buttigieg nekk rivalam ci primaire démocrate yi mu def ko nguur gi yor dem bi ak dikk bi moom njiitum réew mi états nag moom mu ngi ñaax naataangoom yi ci ñu booloo ba mën a gagné siège yi. bu Sénat bi nangoo fal boobu nag kii di mayor Pete mooy nekk nit bu bokk ci LGBT bu njëkk doon njëwriñ ki ko xamle nag. nag di Victoria Institute moom mi nga xamante ne loolu rekk mooy mbébétam ñu dellu ca Afrique ca Soudan foofu nag njëwriñ bu njëkk bi foofu waxaat na ci li jëm ci doole bi takk der yi am ci koom-koomu dëkk bi loolu nag nara braqué au yi bëgg a denc seen ngëneel yi ci nekk moom Abdallah Hamdok mu ngi gën a taxaw ci daqal doole yi au yi am ci koom-koomu dëkk bi. ñu desandi Afrique ba tey ak njiitum réew mu Guinée di Alpha Condé moom nag mu ngi woo guinéen yi ci ñu booloo waxtaan jibo ginnaaw cong yi fa amoon mu toll ci at ci discours d'investiture bi mu defoon ci talaata bi moom Alpha Condé nag toll si juróom-ñetti fukki at ak ñaar ñetteelu mandaam bi adversaire mi ñoom ñu ngi koy laam-laame ba tey lii la leen loon ci xibaar yi ñel bitim réew ñu leen di jox digg daje ba beneen yoon incha allah. bàkk bobé di firndel wàllub tagat yaram sen télévision régionale bés bu yàlla sàkk Fallou Ndaw di ci béy walu am solo ñu and ak mom ci la gëna fess té la yitteel wàllub tagat yaram ci bésub alarba bi ñu salam salaamaaleykum jërëjëf Mamadou Saturne Dione dal nak jamm ci xëtëb tagat yaram bi ñu ubbee rek ak tournoi bi nga xamné collectif des clubs de la commune de Thiès ñokoy amal fële ci terrain bu Seneps ci euh, poule B bi Thiès football club gannaaw bi nga xamee ne dafa duma woon amitié ci première journée ba ñaar bal ci euh, dara tey jii dina dalal US Rail mi nekk ci équipe bu nationale un bi première heure lay doon US euh, Rail nag bi mooy génn bu jiitu ci ñaareelu waxtu bi. CNEPS excellence mi nga xam ne dafa témboo woon ak Africa Promo Foot dina songo ak Walidaan bu club national 1 biit mooy nekk génn bu jiitu bu Walidaan ñetteelu ay bés bi nag dinañ ko jogante àjjuma ak jàmm fële ca terrain bu CNEPS.

ñu ngi koy amal euh, talaata ak jàmm ñaar fukk fan ak ñaar ci weerub decembre bi fële ca stade Lat gannaaw bu juróomu waxtu jotee ci ngoon ci ëllëg sa nag di euh, àllarba 23 euh, décembre coupe CAF ñaareelu tour jaraaf bu Dakar tamit dina songo ak FC San Pedro bu Côte d'Ivoire jongante bi dinañ ko amal. ci stade Lat bu Thiès Ligue France fukkeelu ayubés ak juróom ci programme Reims dina songo ak Nantes Angers di songo ak Strasbourg Nîmes di dalal Nice Montpellier di dalal Metz Dijon mi nga xam ne moo nekk euh, ci place su euh, Ndade ba dina songo ak ki nekk ci place bu jiitu bi di Lille Rennes dina songo ak Marseille Paris Saint-Germain nekti ci le place bi di dalal Lorient mi nekk ci fukkeelu place bi ak juróom-ñaar Lyon nekk ci ñaareelu place bi di dalal Brest le place Monaco nekk ci juróom-benneelu place bi di dalal Lens mi ci. juróom-ñeenteelu place bi ñu dem fale ca Allemagne euh, Bundesliga fukkeelu ayu bés ak ñaar Francfort ak la Mönchengladbach dañoo témboo ñett ak ñett la ñu def euh, Stuttgart ak Union Berlin ñoom it dañoo témboo ñaar ak ñaar Hertha Berlin ak Mainz ñoom it dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa kaw moroom doxtu mun moom dafa dem fekki Werder de Brême daan ko ñaar bal ci benn ba tax na doxtu mun ma nga ca ñeenteelu place ba kii nekk ci place bu njëkk bi nag di Leverkusen moom ci programme dina dem fekki koloñ mi nekk ci fukkeelu place bi ak juróom Bayern de Munich nekk ci ñaareelu place bi di dalal Wolfsburg Leipzig nekk ci ñetteelu place bi di dem fekki ay for euh, ma nga xam ne ma nga nekk ci fukkeelu place bi ak ñaar Premier League fray ca Angleterre fukkeelu ayubés ak ñett Wolverhampton dafa daan Chelsea ñaar bal ci euh, benn Manchester City ak West Brom dañoo témboo benn ak benn lañu def euh, ci programme nag Leeds dina dalal Newcastle Leicester mi nekk ci ñetteelu place bi di dalal Everton mi nekk ci juróom-ñetteelu place bi Arsenal fukkeelu place bi ak juróom di dalal Southampton mi nekk ci ñeenteelu place bi fulaam ni nga xam ne ma nga nekk ci tey jii bu ñu arrêté woon jogante bi ñoom dañuy wàcc dina dalal Brighton mi nekk ci fukkeelu place bi ak juróom-benn West Ham di songo ak Crystal Palace Liverpool mi nekk ci ñaareelu place bi nag di dalal kii nga xam ne moo nekk ci place bu jiitu bi. di Tottenham ñaari équipe ya ñoo tolloo même nombre de points ba tax na ci jongante bi ku ci gagné toog ci fauteuil leader ba Liga espagnole lañ koy jeexale fukkeelu ayu bés ak juróom-ñeent Real Madrid dafa daan Athletic Bilbao ñett bal ci benn Real ma nga nekk ci jamono ji ci ñetteelu place bi ci programme nag FC Barcelone nekk ci juróom-ñetteelu place bi dina dalal ki nga xam ne moom moo nekk ci place bu njëkk ba di Sociedad jërëjëf euh, Mamadou Satirou Ndione lii lañ leen tëkkaloon ci xëtub tàggat yaram. Fallou Ndaw ci xibaarub tàggat yaram mbokk yi foofee sax la xibaar yi buree euh, ci seen télévision régionale di prestige mu nekkoon xibaarub marax yi ci bésu alarba euh, bi yemoo ko fukki fan ak juróom benn ci yorub décembre ci atum 2020 di delluwaat te di leen gërëm yéen ñi xam ne jamono yi nañuy seetaan ca bitim réew ci réseau bi ñuy wax IPTV waaye nag am nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat wax leen ne man ngeen télécharger application Prestige ginnaaw bu ngeen demee Google Play daal di tàppe Prestige TV ngeen am application boobee ci anam nu mu gën a gaawee ngeen mën a am xibaar yi teel bitim réew ak réew mi di Sénégal ci seen ordinateur wala seen téléphone portable mbokk yi ëllëg yeneen xibaar yi teel bi réew mi di Sénégal ak bitim réew mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah.